sëriñ daaru bu Diouf sëriñ daaru na bu Diouf mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1900 ci dëkk bii nag waajuram goroon di daaru Diouf ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1900 muy doomu nag sëriñ Mor Diouf Jati bu njëkk feeñee jamono nag ci dëkkub sëriñ moor juuf Jati boobu muy daaru Diouf muy doomu soxna sëy na bu Kene ak sëriñ Mor Diouf Jati moom sëriñ daaru sëy na bu nag bi mu feeñee jamono waajuram nag sëriñ Mor Diouf Jati sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag la ko fayee mu bokk nag ci turandooy Cheikhul wi nag di sëriñ daaru di ko dàkkantale nag ci waajuróom wu jigéen di soxna say nëbu moom turandoo cheikhul xaddim wi nag di sëriñ daaru say nëbu am na nag ñu mu bokkal soxna say nëbu kene ak sëriñ moor juuf jati ñu mën caa ràññee nag sëriñ elaaji ceerno juuf ibnu soxna say nëbu kene ak sëriñ moor juuf jati soxna ami juuf bintu soxna say nëbu kene ak sëriñ moor juuf jati ak moom sëriñ daaru say nëbu juuf ibnu soxna say nëbu kene ak sëriñ moor juuf jati ñaar nag la bokkal waajur wu jigéen ak moom nag muy ñett ngir xamale leen nag njaboot googu mu bokkal waajur wu góor nag ak waajuru jigéen nag ñoom ñooy ñan sëriñ El Hadji Thierno Diouf di doomu soxna Seynabou Kene ak sëriñ Mor Diouf Diatty ab xalifaam nag mooy sëriñ Moustapha Diouf soxna Ami Diouf mi bokkal soxna Seynabou Kene ak sëriñ Mor Diouf Diatty bi mu matee dem kër sëriñ Paate Kan nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Paate Kan nag am nañ ak njaboota muy sëriñ Ibra sëriñ Omar Kan sëriñ Thierno Kan sëriñ Njaga Kan soxna Xadi Kan ak soxna Faati Kan njabootuk soxna Ami Diouf mi ñooy jarbaati sëriñ bi waajuróom wu góor nag di sëriñ Mor Diouf Diatty ci jàmbaar yi toppoon nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag la bokkoon sanc na itam ay dëkk nag yu takkoo takku nag ci suufus kajoor googu moom sëriñ moor juuf jati itam nag defar na itam nag ñu takkoo takkoo takku nag ci yoon wi ginnaaw seexul xadim itam nag cheikh mamadul moustapha mbàkke nag la joxoon boppam mu wéy nag ànd ak cheikh mamadul moustapha mbàkke wala nag maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru lu takku nag ci ak njabootam daaru muxti alxuraanul karim waajuram sëriñ moor juuf jati nag moo ko dalal alxuraanul karima ginnaaw bi nag la ko jébbal ku ñuy wax nag sëriñ góor mag juufa bi mu wéyee nekk nag ci loxoy sëriñ góor mag juufa ba am nag lu toll fukki at ak ñaar jàpp nag fukki at ak ñett la ko waajuram nag jébbal nag sëriñ tuubaa seexul xaddim ci njaareem di ko xamal nag sëriñ daaru saynu bu mii nag laa la tuddee dama la ko bëggoon a jébbal ginnaaw bu mu ko jébbalee ku baax ki sëriñ tuubaa seexul seexul xaddim itam nag rakkam maam ceerno ibrahima faati nag la woolu jébbalaat ko nag turandoom woowu di sëriñ daaru Seynabu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru daara yi mu sancoon nag ci suuf si nag di daaru salaam Jóopa la yóbbu woon nag turandoo Seexul Xadiim wi ci loxoy maam na nag la muritoo ci loxoy maam Ceerno itam nag la eggalee am njàngam wax nañ ne nag bi mu nekkee nag ci daaru salaam Jóopa daana dem nag Firdawsi nag ci sëriñ Mouhamadou Lamine Ngay Firdawsi daa fa sàkku ji itam nag xam-xam daaru salaam Jóob googu nag la wéy nekk ba ci atum 1939 maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag gërëm ko ci ginnaaw nag bu waajuram mbokk yi daaru salaam jóob googu itam nag la sampe kër ñu boole koog nag soxna suñuy wax soxna jóob juufa ñaari doomam yi sax foofu lañ feeñe jamono di ab taawam di sëriñ tuubaa juufa ak rakkam ji nag soxna maam bu sa juufa mu wéy nekk nag ci loxoy maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci ndigalul sëriñ tuubaa seexul xadim ba ci atum 1939 maam noo nag woo ko gërëm ko sàkku itam nag ci sëriñ paate sàll mu ànd ak nag doomu sëriñ móor juuf jatti bi ñu dem nag daaru juufa muy xamal nag sëriñ daaru say nabu soo eggee nag sëriñ paate sàll mii xam ne nii nag aju na nag ci wàllu xam-xam mu féete la fa te soo demee def ko fa nag ci ginnaaw maam Thierno ba ba nag di sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nekk itim nag ci ginnaawam sanc na muy Daaru Salaam ci bi muy sanc dëkk bi nag ci ko waral sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag moo sàkk woon ci moom mu defaral nag am néeg nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ginnaaw bu mu defalee néeg ba Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke nag ba noppi gouverneur bi nekkoon ndar ñëwoon na nag gane si nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke te néeg boobu itam nag la ko Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke dalaloon ginnaaw bu mu gisee néeg ba nag sàkku na itam nag ci Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke kan moo defar néeg bi mu di ko xamal ne ku ñuy wax sëriñ Daaru Seynabu nag moo ma ko defaraloon gouverneur bi nag doon xamal mu Mouhamadul Fadal nag ku bëgg nag néeg bu mel nii naka lay def nag ba am ko Cheikh Mouhamadul Abdoul Fadal nag di ko xamal ne ki ko defar de ndigal dong nag lay déglu saa buñ ko ko waxee nag mu defar ko tubaab bi daal doon na xamal Cheikh Mamadou Fadal nag ne néeg bu mel nii nag bëgg na ko ginnaaw buñ ko yëgalee sëriñ Modou Awa Balla Mbacké la sàkkuwaat nag ci sëriñ Daaru Seynabou mi mu defaral nag bi nag ab néeg ci dëkk boobu nag di Ndar ginnaaw bu mu ko ba nag ba noppi gouverneur bi nag sàkk woon na nag ci sëriñ Daaru bu lan la bëgg sëriñ Daaru bu nag di ko xamal ne ki ma ko defar loo de moom ngërëm dong nag laay sàkku nag ci moom gouverneur bi nag di ko xamal xamal ne daal ngërëmul ka ma ko defarloo daal laa soxla gouverneur bi daal doon na ko xamal ne nag soo bëggee suufa xoolal nag ci réew mi nag foo ko soxla ma jox la ko ginnaaw bu mu gisee suuf nag la ko sàkku nag ci gouverneur bi gouverneur bi itam nag laaj chef de canton boobu nekkoon nag ci kajoor mu jox ko nag suufa suuf soosu nag la sanc nag ab dëkk Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag mi ko xamalee gouverneur bi moo tudde dëkk ba nag daaru salaam daaru salaam googu sax lañ ko mujj denc nag ginnaaw bu mu génnee àdduna ci atum 1955 nag lañ gor suuf sa ci atum 1956 nag lañ ko tudde daaru salaam sanc ko dëkk boobu nag di daaru salaam juuf nag ba mu ko sancee ginnaaw daaray alxuraan jooju nag defoon na fa itam nag ñaaree daaray tarbiya donga itam nekk fa nag di liggéey ngir suñu boroom ba tax na nag mbooloo mu takkoo takkoo takku nag jaar na fa nag ca daara ja ngir ame fa nag ngërëmul suñu boroom amaatoon na daara itam nag ca mbooroo ñu koy wax nag daaru man naan foofa itam nag mbooloo mu takkoo takkoo takku itam nag génne nañ fa ci wàllu tarbiya dëkk bi waajuram goroon itam nag di daaru mbooy foofa itam nag amoon na fa daara mbooloo mu takkoo takku itam nag génne na fa lépp loo xam ne ni nag mas naa ñore nag ci daara yooyu ki fi nekkal nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag la ko yit di sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke leen li itam nag mu yit ko ki fi nekkal sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima dëkkam boobu nag di Daaru Salaam Juufa bi mu ko sancee dël na fa nag ay rakkam rakkam yam fa dël nag ñu man caa ràññee sëriñ Mbàkke Siidi Juufa daaray alxuraan jam fa sancoon moom la ko féetale woon sax nag mu di fa jàngalee sëriñ Ceerno Buso Mbuub Juufa di rakkam nag ba tey foofu nag la ko dëkkaloon rakkam ju bokkal waajur wu góor alaaji Ceerno Seynabu foofa itam nag la ko dëloon sëñ Abdullahi Xadi Juuf itam ca dëkk ba itam nag la ko dëkkaloon lépp loo xam ne nii nag waajuram daana ko def bi mu ñëwee itam nag wéyal na ko ci njabootuk sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag gi mu fekkanteel jamono rawatina nag njabootuk maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag gi mu joxoon boppam lu mel ne nag néegi sëriñ Moor Juuf Jati nag daa takkal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim takkaloon na ci nag bu mel noonu na Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba tax na tax gouverneur nag bi nekkoon su ma ko joxoon nag moom la tudde sax nag dëkk bii mu yaroo di daaru salaamu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu koo xam nag ci daaru salaam Jóob yooyu itam nag ba tey takkal na ko sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke takkal na ko itam nag sëriñ Tuubaa Cheikh Sohaybu bu Mbàkke takkal na ko itam nag kim joxoon boppam di sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke taxawaayu waajuram daal la taxawe woon lépp loo xam ne daal bu fi waajuram nekkoon defal ko nag doomu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiimi moom itim nag bi mu ca tolloo defal na ko nag doomi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiimi sàmm itam nag ay rakk rakkam sàmm itam nag ndonal baayam bi muy toog nag xalifa ci atum 1939 ndénkaan nag li fi sëriñ Mor Diouf jati bàyyi woon sëriñ Daaru Saynabu itam nag na ko muy njaboot gu ndaw gi mu fi bàyyi ku ci jàng nañ ko jàngal ku ci mat a tarbiya itam nag nañ ko yóbbu nag ca daara ja ku ci mat a samp kër nag nañ ko sampal kër ku ci mat dem kër itam nag nañ ko yóbbu kër loole itam nag sëriñ Daaru Saynabu matal na ko nag ci ay rakkam ñu mujjee yóbbu nag ñu dem tarbiyewu ji ci njabootu sëriñ Mor Diouf jati gi mooy caatum sëriñ Mor Diouf jati yëkkati muy sëriñ bu Buso Mbuupa keroog ba mu koy yóbbu nag mu tarbeewu ji doomu boppam nag sëriñ Tuubaa Juuf nag la ko booleel ak nag jarbaatu boppam nag bu ñuy wax sëriñ Ceerno Kan ñett ñii nag xamal nañ ñu ne ñoom lu mujjee yóbbu nag ci daara ji nag ñu tarbeewu ci loxoy sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke loolu waajuram nag bëggoon ci njabootug boppam moom itam nag bi mu amee ak njabootam foofu itam nag la leen jaarale muy yóbbu leen nag ñu dem liggéeyal Seexul Xadiima mu nekki nag ku jaxasoog sëriñ Muudu Awa Balla Balla Mbàkke itam nag fonkoon ko tax na nag doom jii mu ko joxoon nag di sëriñ Touba Diouf nekkoon na it nag bëkk néegu sëriñ Modou Awa Balla Mbacke xamal nañ ñu ne nag ba fi sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag di jóge sëriñ Touba Diouf mii nag fekke na ko ci atum 1982 la ginnaaw bi nag la sëriñ Daaru Saynabu jébbal boppam nag sëriñ Abdul Xuddoos Mbacke fob nag ak njabootam jébbal nag ki fi toogal sëriñ Modou Awa Balla Mbacke muy sëriñ Moustapha Absa ci atum 1983 sëriñ Moustapha Absa itim ganasi na nag sëriñ Daaru Saynabu ci Daaru Diouf googu ngan googu itim nag fooroon na lool nag ci sëriñ daaru sëy nëbu ba wax na ne nag bisub keroog nag aalu woon na fa wax na nag képp koo xam ne ni daal fekke nga ngan gi na nga dem fob nag mbubb ma nga gën a fonk nag indil ma ko keroog nag bi sëriñ Moustapha Absa nag di dellu daarul muxti yëre yu takkoo takkoo takkoo takku nag la yóbbaale ndax muritug sëriñ daaru sëy nëbu juuf ci dëkk bii nag di daaru juuf nag la ngan nga amee woon bisub keroog itam nag sëriñ Moustapha Absa délégation bu takkoo takkoo takku nag ànd naa ak moom ci biir délégation boobu mu àndaloon nag ngir nag bu juufa ñu mën cee ràññee nag sëriñ cheikh xadi mbàkke sëriñ fàllu mbàkke assu jéy di rakkam sëriñ basiiru assu looyitam nag di rakkam sëriñ mbàkke anta ñang moom maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay kilifa nag yu sëriñ moustapha mbàkke absa nag àndaloon mu nekk nag ku jaxasoog nag yoonu murita rawatina nag njabootu maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ginnaaw maam Cerno nag sëriñ muudu awa balla mbàkke nag moo nekkoon nag sëriñam tudde na ñaari yoon doom sëriñ muudu awa balla sëriñ Modou Awa Balla Mbacke daa def daana ca bàyyi xel nag sëriñ daaru say nabu addiye yu takkoo takkoo takkoo itam nag la ko sëriñ daaru say nabu nag yitta ku jaxasoo woon nag sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke la sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke itam nag foboon na ñaari doomam nag jébbal sëriñ daaru say nabu nag ngir mu dëkkoo ko muy soxna Mbène Mbacke bintu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke bi soxna Mbène nag génnee àdduna la sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke fobaat nag baneen doomam na doom sëriñ Cheikh awa balla mbàkke njabootu maam Thierno Gueye itam ñu ci takkoo takkoo takku nag tudde na leen doom tudde na sëriñ Modou Abib Mbàkke doom tudde na sëriñ Mouhamadan Koso doom mu nekk nag ku wëlëranteeg sëriñ Abdourahmane Mbàkke moom maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudde na sëriñ na ko doom soxna Assu Mbàkke Thierno di doomu maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam nag tudde na ko doom Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ibnu ak moom ba moom sëriñ Daaru Saynabu nag yoroon na nag ay soxna nag soxna yim dëkkoo woon nag ñu mën cee ràññee soxna Jóob Juuf mu soxna Jóob Juuf nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag turandoo Cheikhul Khadim wa di sëriñ Touba Juuf ak soxna Maam Busa Juuf yoroon na soxna suñu wax soxna Faati Mbay mook soxna Faati Mbay tim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag turandoo sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke wa di sëriñ Moodu Faati Mbay ak sëriñ Koso Juuf yoroon na soxna suñuy wax soxna Mbeen Gay mook soxna Mbeen Gay nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mahmudoon Diouf soxna maam Faati Kubra Diouf soxna maam Busa Diouf Suxra soxna Binta Diouf ak soxna Njóoba Diouf yoroon na soxna suñu wax soxna Mbeen Mbàkke moom Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke moom maam Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna Mbeen Mbàkke itam nag nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag Sëriñ Moodu Mbeen Diouf Sëriñ Cheikh Mbeen Diouf soxna Moomi Diouf yoroon na soxna suñu wax soxna Sala Géey mook soxna Sala Géey itam amoon nañ benn bant muy Sëriñ Fàllu Diouf yoroon na soxna suñu wax soxna Mati Ngom mook soxna Mati Ngom itam nag am nañ benn bant muy turandoo woowu soxna Astou Thierno Mbacke wa di soxna Astou Diouf yoroon na soxna suñu wax nag soxna Ami Gaye moom soxna Ami Gaye nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Masamba Diouf sëriñ Modou Abibou Diouf soxna Mbène Diouf ak soxna Maam Faati Diouf yoroon na soxna suñu wax nag soxna Maam Boussa Mbacke mook soxna Maam Boussa Mbacke itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdourahmane Diouf sëriñ Mbacke Awa Balla Diouf ak soxna Jaara Diouf yoroon na soxna suñu wax nag soxna Ami Cuun mook soxna Ami Cuun itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Xaadim Diouf soxna Njóoba Demba Diouf soxna Diop Diouf ak soxna Mariama Diouf yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Assu Jaañ moo soxna Assu Jaañ itam nag amoon nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag maam Awa Diouf ak soxna Issa Diouf yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Ami Cuun waaye moo soxna Ami Cuun nag amuñu nag ak njaboot yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Faati Njaay Baati Njaay Baati itam nag na soxna suñuy wax soxna Seynabu Njaay ba tey moo soxna Seynabu Njaay itam nag amuñu nag ak njaboot soxna yi nag la dëkkoo woon njaboot yi nag la ci am ngir xamale leen nag soxna yooyu mu dëkkoo woon kon nag njaboot yi mu ci am nag ñoom ñooy ñaan doom ji nag di soxna maam bu sa kubra bi mu matee dem kër sëriñ jibril cuun nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ jibril cuun nag am nañ ak bi mu matee dem kër sëriñ moodu awa balla mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ moodu awa balla mbàkke itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññal nag sëriñ xaadim mbàkke ak soxna bintu mbàkke soxna maam faati juuf kubra nag bi mu jógee ci loxoy sëriñ moodu awa balla mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Cheikh Khady Mbacke moom maam na Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru mook sëriñ Cheikh Khady Mbacke nag benn bant nag lañ am muy sëriñ Modou Mbacke doom ji nag di soxna Momi Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom sëriñ Abdoul Wudoot Mbacke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Cheikh Oumy nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdoul Lahad Mbacke sëriñ Abdoul Wudoot Mbacke sëriñ Moustapha Mbacke sëriñ Modou Farmata Mbacke sëriñ Afia Mbacke sëriñ Modou Ami Mbacke ak sëriñ Cheikh Oumy Mbacke sëriñ Cheikh Oumy Mbacke maam Faati Mbàkke soxna Moomi Juuf mi nag bi mu jógee ci loxoy sëriñ Cheikh Ummi Mbàkke moom sëriñ Abdul Wudood Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Góora Abi Cuuna mook sëriñ Góora Abi Cuun nag benn bant lañ am muy soxna maam Faati Cuuna soxna Moomi itam nag bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Góora Abi Cuun lañ ko jébbal nag ku ñu wax sëriñ Touba Juuf nag bu Mbooro mook sëriñ Touba Juuf nag benn bant lañ am muy sëriñ Saaliw Juuf doom ji nag di soxna Mbeen Juuf bi mu matee dem kër sëriñ Baara Siise nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Baara Siise nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññal sëriñ Xaadim Siise Cissé sëriñ El Hadji Cissé sëriñ Modou Cissé Baye sëriñ Cissé sëriñ Sidi Cissé sëriñ Mahmoudane Cissé sëriñ Thierno Cissé ak soxna Cuuna Cissé doom ji nag di soxna maam Faati Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Daaru Ndiaye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Cheikh Daaru Ndiaye nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ Daam Ndiaye sëriñ Xaadim Ndiaye sëriñ Bàcc Ndiaye sëriñ Galas Ndiaye sëriñ Moussa Ndiaye soxna Ndiaye ak soxna Moomi Ndiaye doom ji nag di soxna maam Boussa Suxra mu matee dem kër sëriñ Maam Moor Diouf nag lañ ko nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ El Hadji Diouf sëriñ Mor Diouf soxna Nogoy Diouf ak maam Say Diouf doom ji nag di soxna maam Binta bi mu matee dem kër sëriñ Modou Faati Ndiaye nag lañ ko jébbaloon nag ci Daaru Moxti mook sëriñ Modou Faati Ndiaye nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag maam Mor Ndiaye sëriñ Babacar Ndiaye sëriñ soxna maam Faati Ndiaye soxna Mbeen Ndiaye ak soxna Ndey Ndiaye doom ji nag di soxna Njóoba Diouf Kubra bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Awa Diouf nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Cheikh Awa Diouf nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ Mamoor Juuf sëriñ Koso Juuf sëriñ Moodu Juuf sëriñ Fàllu Juuf sëriñ Masamba Juuf sëriñ Abdourahmane Juuf sëriñ Maam Cheikh Juuf ak soxna Adama Juuf doom ji nag di soxna Awa Juuf bi mu matee dem kër Baay Ceerno Mbay nag lañ ko jébbaloon mook Baay Ceerno Mbay nag benn bant lañ am muy sëriñ Moussa Mbay soxna Awa Juuf bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Ceerno Mbay lañ ko jébbal nag sëriñ Saaliwu Faal mook sëriñ Saaliwu Faal nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ Njaga Faal sëriñ Adama Faal soxna Màgget Faal soxna soxna Awa Cheikh Fall doom ji nag di soxna maam Fatou Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Mortala Diagne nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mortala Diagne nag amuñu nag ak njaboota doom ji nag di soxna Astou Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Abdourahmane Mbar nag lañ ko jébbaloon moom sëriñ Balla Coro mook sëriñ Abdourahmane Mbar nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññal sëriñ Abdoulahad Mbacke ak soxna Abi Mbacke ginnaaw bu soxna Astou Diouf nag jógee ci loxoy sëriñ Abdourahmane Mbacke Mbar lañ ko jébbal nag sëriñ Ibra Kane nag bu mbooroo mook sëriñ Ibra Kane nag Busa Kan soxna Sofi Kan ak soxna Faati Kan doom ji nag di soxna Jóob Juufa bi mu matee dem kër sëriñ Habibu Cuun nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Habibu Cuun nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mouhamadan Cuun sëriñ Muudu Cuun soxna Maam Busa Cuun soxna Aram Cuun ak soxna Faatu Cuun doom ji nag di soxna Njóoba Juufa bi mu matee dem kër sëriñ Góora Juuf nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Góora Juuf nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Xaadim Juufa Aadama Juufa soxna Ami Juufa ak soxna Maam Jaara wootee dem kër sëriñ Moodu Diouf imaam nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moodu Diouf imaam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ Siidu Diouf sëriñ Seexuna Diouf sëriñ Moodu Diouf sëriñ Elaaji juuf sëriñ As Jaxate Diouf soxna Maam bu sa Diouf ak soxna Daba Diouf lii nag mooy lenn tim nag ci sëtti sëriñ bi mu wéy des nag ci dëkk yooyu ko waajuram nag bàyyeel wéy itam nag des itam nag ci dëkk boobu nag mu gor di daaru salaama wéy itam nag di taxawu itam nag ay rakkam wéy itam nag di taxawu itam nag ndonal sëriñ Moor Diouf dëkk boobu nag di ndakaaru ci feebar nag bu ko tëral mu nekkin nag ku bari ay turandoo nag ci tundu sowu jant woowu moom sëriñ daaru Saynabu ay turandoom nag ñu man cee ràññee ñi ñuy wooyee sëriñ daaru am na ñu ñu ciy wooyee nag sëriñ xaadim am na ñu ñu ciy wooyee tim nag baay sëriñ moom sëriñ daaru Saynabu Juufa mi ngi génn àdduna nag ci feebar nag bu ko tëral ci dëkk bii nag di ndakaaru ci hôpital nag principal ci bisub ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru diggu tëbaski ci atum 1404 nag ci gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar Tabaski ci atum 1404 nag ci gàddaay dëppoog nag muy vendredi 24 août 1984 vendredi 24 août 1984 ñu yëgal ko nag fi toogoon toogaayu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru di sëriñ Abdul Xuddoos Mbacke sëriñ Abdul Xuddoos Mbacke itam nag moo sàkku ci doomu nag ki mu njëkkoon a jébbal boppam di sëriñ Modou Awa Balla Mbacke di sëriñ Moustapha Absa ngir mu dem nag Daaru Salaam Juufa taxawu nag seen taalibe waajur woowu di sëriñ Daaru Say Nabu bi sëriñ Moustapha Absa nag di dem Daaru Salaam Juufa mbooloo mi ñim àndaloon nag ñu mën cee ràññee doomu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ba di sëriñ Cheikh Khady Mbacke doomu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke ba di sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke doomu sëriñ Modou Awa Balla Mbacke ñuy wax nag sëriñ Koso Assuloo ak ñeneen ak ñeneen nag ca mbooloo ma bi ñu eggee nag sëriñ Moustapha Absa moo ko jullee ñu jébbal ko boromam nag ci dëkk boobu nag mu sancoon te Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag tudde woon ko Daaru Salaam soo delloo nag ci mbind mii nag sëtam way di sëriñ Touba Diouf moom sëriñ Koso Diouf moom sëriñ Daaru Seynabu Diouf ci ko ma nga tàmbalee nag am mbindam ci kennal nag ki mat a kennal nag muy suñ boroom dellu itam nag di ko sant nag bu baax a baax itam moom suñ boroom ba tey julli nag ci ab yonentam ak i sahabaam nag ak ay ñoñam ñu nekk nag ñu teey nag ak nag ñu sell sell moom sëriñ Tuubaa Juuf nag mu sukkandiku ci aaya bii nag suñ boroom nag wax nag ci alxuraanul karima di ñu xamal ne nag ci biir mbindeef yi am na ci ñoo xam ne nii nag ay góor lañ lépp loo xam ni daal warlante woon nañ ko ak boroom matal nañ ko mu misaal nag aaya boobu suñ boroom nag wax nag ci alxuraanul karima ci doomu sëriñ Mor Diouf Diatty bii di sëriñ Daaru Seynabou Diouf mu ñuy xamal na nag kii muy waaja wax nag sëriñ Daaru Seynabou juuf nag la tudd mi ngi feeñ jamono itam nag ci atum 1900 ci dëkk boo xam ne nii itam nag waajuram nag moo ko goroon tudde ko nag Daaru Diouf mu ñuy xamal ne nag ba tey sëriñ Daaru Seynabou mii mi ngi cosaanoo nag ci yaari waajur yoo xam ne nii ñu sell lañ ñu jub lañ ñu am itam nag ay jikko nag lañ nag yu rafet ñaari jëmm yooyu nag ñoo ko sos waaye ñaari jëmm yooyu itam nag ñoo ko yar kër googu mu yaroo nag nekk nag kër goo xam ne nag kër gu yàgg siiw la ci jàng alxuraanul karim nag ak sàkku xam-xam ak sàmmu seen diine nag ak bañ nag lu ñuy rusa lool nag moo tax itam nag kii nag feeña fa jamono bokki nag ci ñi nga xam ne nii dañoo fase woon nag àdduna fase moo xam ne nii nag fase nag la nag mu wér a wér jëmm ji muy xam xamle nag muy sëriñ daaru Saynabu ku jaayoon nag ab dundam la ngir nag réewam ku joxe boppam la ngir ñoŋal nag am réewam wala nag ngir ñoŋal nag ab dëkkam ngir sàkku itam nag ngërëmul suñ borom li nga xam ne nii nag moo ko bind waaye itam nag ku joxe la ngir ñi nga xam nii nag ñoom borom booleeloon ñu nekk itam nag ñu juba jub mu fexe itam nag taalibeem yooyu itam dëgmal itam nag suñu boroom te bañ koo yemale kenn ci lu fés nag ak nag lu nëbbu ak njabootam itam nag ak nag ay taalibeem nekki nag ñoo xam ne nii itam nag ñu kawee kawee lañ sàmm nag santaane suñu borom bi mu ne ñooñu mu yoroon nag ak lu baax loolu mu bëggoon histoire nag munta tudd nag ku baax te du ci boole nag sëriñ daaru say nëbbu nag wala nag ku mu yar mu nekkoon nag jàmbaar joo xam ne nii ku woon nag engagement la ndax lépp loo xam ne nii nag mas na koo sumb day mu daan ko ngir dëggal nag li mu wax mu ne nag sëriñ daaru Saynabu nag dëkk yu baree baree bari nag sos na leen ak daara yi nga xam ne nii nag taxawal na leen te loolu itam nag la yoo xam ne nii ba yow mal xiyaam nag kenn du ko fàtte wala nag duñ dañ mukk nag di leen jariñoo te beneen wàll ga itam lépp loo xam ne nii nag ndona la nag lu ko fi sëriñ Mor Juuf Jati nag bàyyeel loola itam nag sàmm na ko ba ci yar ay rakkam nag jàngal leen taxawal leen nag bañ mën a samp kër rakkam yooyu itam nag mu ne demoon nañ ba fàtte ne nag sëriñ moo Juuf Jati nag mooy seen daaru say nëbu nag ci ñoom lii nag misaal la nag mu kawee kawee kawee ci dunduk jàmbaar jii nag di sëriñ daaru say nëbu ñu teewlu nag li ci sëriñ Touba Diouf nag bind di ab sëtam di doomu sëriñ Koso Diouf moom sëriñ daaru say nëbu ci kàllaama araab nag la ko bind ñu teewlu ko qaala taala fi muxkami tanzilihi min almuminina rijalun sadaqu maa haahadu allaha alayhi fa minhum man xadee naxbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila sëriñ daaru say nëbu bu Diouf huwa min mawalidi 1900 fi xaryati daaru Diouf bayna abawayni karimayni urrifa bil istiqaamati wan nubali wa tayyibil arumati wal aqlaq wa nasaa wataranrax fi biatin saalihatin wa baytin mashhurin min qadimi shamaan bil ilmi wal amali والدين والمروءة وهو من الشخصيات الذين اطلقوا الدنيا بتة ودهوا حياتهم لأجل أوطانهم وابتغاء مرضات الباري wa irsaadi atbaahihim fi haasa nahji alqawim wa aqbaluu ila mawlaahum qalban wa qaalaban bihimmatin caaliyatin wa casimatin lam yusbaq biha misaalun fi ltaariq xatta tarakuu fi waraihim basamaati alzikriyati almumtaxati alraixati aljaliya allati laa yansaaha altaariq wa kaana aydan sujjaaxan miqdaaman wa mima yadullu cala zalika min saatuhu aljaliya almalmuusatin baaqiya ila yowmi alqiyaama inshaa'i lbuldaani wa xayriha wa min naaxiyatin nuxraa kaana sëriñ daaru seynabu kaafilan li ixwaanihi shigaari rijaalan wa nisaan fi tacliimihim wa tarbiyatihim wa quutihim wa kiswatihim xatta ansaahum aabaahum wa kaana fi gaayati llutfi warraqati maahum fi kulli xiin fa huwa almathalu alaclaa fi lxanaan wa kaana radiyallahu anhu yaxuddu wa yusajjihu atbaahahu ala alcamali walkadaxi fi lcibaadati allah kaana aydan rajulan sarifan mutacalliman مبدعا وافر الفضل والشكاء متوقدا بارعا عالي الهمة سقوفا بالمعالي وعطوفا على البؤساء والشعاليك زكي الفؤاد طيب النفس خوي الإرادة لا يعجبه في الدنيا شيء ومهابا في قومه رغم أنه كان جامع الحلم والحنان أما من ناحيته سلة الرحم فهو القدوة العصمى والأسوة الحسنة في ذلك حتى يمثل به همزة الوصل في الجاه aljaamica walitixaad wala yafxalu shay'an munfaridan bihi illa bilmusaawarati maahum wa talabi aaraa'ihim walam yasal baaxiyan calaa haada addarabi xatta adjahahu almaradu wa alzamahu alfiraasu wa tamma naqluhu ila mustasqa raisi bi dakar hôpital principal wa fiihi labba ruuhuhu alxaalis nidaa rabbihi an humrin naahis 84 sana wa wuriya jusmaanuhu fi qaryati allati ansaaha almacruuf wa wuuriya jusmaanuhu fi garyati allati anshaaha almaaruf bi daar salaam Diouf jasaahu llahu anna wa an lislaami xayran amin ya rabbal alamin ay xalifaam nag nii la tëddee moom turandoo cheikhul xadim wi di sëriñ daaru say nëbu ci atum 1984 ba ci atum 2013 kam faye woon kañ ko tuddee di sëriñ tuubaa juufa moo ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa sëriñ daaru say nëbu mooy turandoo sëriñ moodu awa balla mbàkke di sëriñ moodu faati mbay moo ko wuutu nag ci atum 2013 ba ci atum Niassène ñetteelu xalifa sëriñ daaru Seynabou di ñaareelu doomam nag bu mu tuddee sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag ba tey ñu koy woowee nag sëriñ Modou Mbène Mbacke moo fi nekk nag ci atum 2015 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu ak mboolem nag ñu mu séqal nag sëriñ daaru Seynabou moom sëriñ daaru Seynabou nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tuddee ak màggal bis bii nag mu génnoon àdduna di ñaar fukki fan ak ñaar nag ci weeru diggu tëbaski ginnaaw nag bu ci njaboot gi waxtaanee dañoo gisoon tabaski gi ñu xam ne nag màggal ba pare nag waaj tabaski nag dafa metti ginnaaw bu ñu waxtaanee ci seen biir nag la nag seen rakku waajur wa di sëriñ El Hadji Thierno Diouf xamal ne nañu jàpp nag ñeen fukki guddi sëriñ Daaru Saynabu mii mu dëppoog nag juróom-ñaari fan nag ci weeru tamxarit ñu xam ne nag màggal ba pare nag doog a tamxarit nag moo gën ñu jàpp nag ñeen fukki guddeem nag di ko ci fàttaliku ci dëkk boobu mu tëdd nag sanc ko di daaru salaam juufa ñuy ñaan nag ci barkeeb ko ñu na suñ boroom nag yokk bàyyi li di jafe-jafe réew mi tiim nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey turandoom seexul xaddiim amiin cheikhul xaddiim amiin cheikhul xaddiim amiin cheikhul xaddiim